fa yaa xayu yaa qayuumu yallaahu rabbana ilayka tawassalna bi xayril bariyati aoudu billahi samiil aliim min ashaytaani rajiim wala xawla wala quwwata illa billahi alaliyyil aziim bismillahi walhamdulillahi alqaa'ili fi muxkami tanziilihi alladina ida asaabathum musibatun qaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika hum almuhtadun wa salla allahu wa sallama wa baaraka wa majjada wa sharafa ala almabuuthi rahmatan wa hidayatan lilaalamin sayidina wa mawlana muhammadin salla allahu alayhi wa ala alihi wa ashaabihi ajmain xadaraati saada ixwaani fi llahi lillahi wa ila allah niyaabatan anil xalifati asseyd aboubacar mahamadul mansour axi alhaaji malik si niyaabatan anhum aqulu assalaamu aleykum wa taala wa barakatuhu bokki jullit yi ginnaaw bu ñu musloo ci bakkan ak seytaane yal nañ ci yàlla boole musal ñun ñëpp ñu ubbee wax ji ci turu borom bu tedd bi tamoo di bismillahi dellu di sant yàlla bu baax yàlla mi nga xam ni moo ñu bind bokk ñoo ñu bokk bind ñun ñëpp tëral nag dund ak dem ki tëral dund ak dem nag lu ko neex mu def ci jaamam yi sëñ Babacar nag wax ma ni naa ko wuutu njaboot gi wuutu mbokki jullit yëpp ci li nga xam ni dal na leen ci natt bu yàlla indi te moo di sunu mbokk yoo xam dañuy def ak accident yi fële ca euh, dëkk ba fële ca Kaffrine diggante Kaffrine ak Niibi foofu lañ ko defee sunu borom nattu ci nag indi ca nattu bu mat sëkk ñeen fukki nit yoo xam ni ñàkk nañ ca seen bakkan am na ci juróom-ñaar